Euh, le 19 octobre 2016 dama jënd benn moto fi Liberté 6 bi ma ko jëndee waa ji daf ma ko jaay à mille ma jox ko kii 700000 desal ko cent 200000 na ko fin du ma jox la li des fin du ma jox la des boobu mu ma yóbbu mu jox ma moto bi bindal ma facture def ci cent mille avance mu des deux cent mille ma yóbbu moto bi ba Louga waaj danga ko xamoon

Euh, dimanche lundi moom mu xëy si ñëw suma kër. ànd seeg police mayuñu ma fa. mais mujj nga dem jëli moto beneen bi. jël nga beneen moto bi pour sa booy bi. waaw léegi moto boobu rendre wala jox nga xaalis. rendre naa ko. kooku rendre jaaykat bi. jaaykat bi jour parce que kooku jënd ko. jënd ko léegi ñu jël euh, inspecteur bi jëlaale sama moto man bi nga xam ne dugal naa ci sama 700. dafa am ku ñëw sa kër yow. police dafa ñëw sa def descente pour lan. pour euh, nee nañ waa ji dafa ne dama ko doon jéem a escroquer. da nga ko escroquer ci moto bi nga jënd. waaw léegi. xanaa li nga ko versé wul deux cent mille yi des. li ma ko versé wul deux cent mille yi te deux cent mille yi fin du mois la ñu waxante boobu fin du mois sa jotagul boobu fin jotagul. ci simple léegi bi moom kiyee mu jël moto bi jëlaale papier yi fuyee samay bagage jël papier moto facture ba mu ma defar yëpp jox ko ko bi mu ko ko joxee jox ko kan ki la jaay moto bi ma jaay moto bi ne procureur moo ko ne na joxe moto bi mm. ma demee bi ma kiyee téye ma foofu ba ay vingt et une heures jox moto bi waa ji mu dem ak sama casque bu ma jënd sama xaalis même waa ji dem ak moto bi ba pare mu doog ma woo di ma laaj ma ne ko loo may laaj balaa nga may laaj kay waa ji toog ma toog nga dégg li may wax nanguwul na ne ma loolu man du ma maa koy jàngal liggéeyam. commencé di ma menacer je suis fautif te bu ma defee dina xam dinaa xam ne du defee nit mu échec. saa yi bi mu waxee loolu nag mu ne ko ah mu ne waaw ci laa ma ne ko je n'ai rien à vous dire parce que comme doo defee nit mu échec man xaw ma lu ma lay wax comme ay menaces la ci la kii bi mu tapé dossier ci lendemain mu yóbbu ñu yóbbu ma tribunal après ñu yóbbu ma ci kaso bi ne ma da ngay taxaw mes crédits. ñu may renvoyé waa ji nangul ñëw parce que jot na moto bi xam na ne instant bi sama alal la ne ci loxoom nangul ñëw ba niñ may àttee dem naa sax ba dama énervé bu may wax ak yi ci lañ ma ne expliqué ma ne affaire bi demeewul noonu su ngeen bëggee am dëgg sama téléphone mii bii da ngeen di jël ngeen déglu version ba may waxaaleeg waa ji parce que lépp enregistré naa ko hmm. su ngeen bëggee dégg dëgg juge yi wuyu wuñ ma moom inspecteur bi waxoon naa ak moom tamit nanguñ ma te ci juge aussi j'ai compris ci biir audience bi mënuñu fa jël téléphone pour déglu li nekk ci téléphone. boobu yaa ngi sa avocat. boobu man amoon avocat. yow rek yaa taxaw man rek maa taxaw. léegi ci la jàppee kon mën nañu wax. waaw tëj la ñaata. ñu tëj ma un an six mois. un an six mois ci 200000 francs. laa def ci kaso bi. kañ nga génn. 31 décembre bi. kañ la la tëjoon ban année. 2016. ba début mën nañ ni presque 2018 nga génn ci 200000 francs 200000 francs léegi waa ji moom seet nga ko ba xam lu waral moom tamit mu topp la seet naa ko waa ji keroog ma séenee dafa daw gisatuma ko man ki la jaay moto bi ma jaay moto mhm. man soxlaw ma lenn loolu na ma delloo sama 700000 francs porté mhm. waat nga ko plainte moom lañ ma wax naa ko porté plainte mhm. parce que même ci pour bi ma demee démb ci juge yi fële daf ma ne dafa am benn kii wax greffier bi na ma na ko jox numéro kii jugement bi pour ma mën a sukkandiku ci loolu porter ko plainte parce que facture beeg yëpp man ñàkk naa ko. kon tëdd nga un an six mois mat sëkk. tëdd naa fu mu toll un an deux mois laa laa tëdd. ñu bàyyi. ba liberté conditionnelle nga am kon. no bindu ma liberté conditionnelle parce que toog rek ne yàlla. waa du ma. dañ la gracier. dañ bàyyi ci grâce bi. Hmm. yaa ngi woon fan rëbës. maa ngi woon dañ ma Louga lañ ma tëjee yóbbu ma kaso bu. Kébémer. Kébémer nga nekkoon. dégg euh, Linguère Linguère. Linguère nga nekkoon. waaw Linguère léegi nag man sama problème mooy. nañ ma dellool sama alal. waa ji parce que am na loo xam te ni mën naa fa jaar te su boobaa dana gën a ñaaw parce que dama ne balaa maa def dara nag. naa ñëw fii wax si sinon su ma fi jógee su ma su ma toogee gisuma sama alal mook inspecteur bi yëpp danaa dem ci tuur yi tuur leen ndaxte am na loo xam te ni moom ma toroxal ñaari yoon. métti na ma trop inspecteur bi nag tëkku na ma nee na ma carrément te ne woon naa ko bu ma génnee maa yow xaw ma lan mais du ma bàyyi mu sedd nee na ma carrément du defeere nit mu échec porté naa fa nit plant muy copain mu dëgg plainte bi nangu ci def dara mais jaabante police jaabante police ba commencé jaabante ci procureur yàlla def problème bi am mu appuyé ci problème bi pour dugal ma kaso man nag sama alal laa soxla balaa maa dem feneen ak feneen